billaahi wallaahi tallaahi aana mi ngi këram te mi ngi ci jàmm moom déggul sax li di wax tellement que c'est mi ngi ci këram te mi ngi ci jàmm te digganteem ak jëkkëram billaahi bu ma la nee suukar ak lem sax moo ko gën a neex doo ko gëm man dafa am lu ma jaaxal ci sénégalais yi man dafa am loo xam ne tey daf ma jaaxal ci média sénégalaise te loolu c'est important toujours ñu koy wax pour doomu aadama yi di ko dégg billaahi wallaahi laa la wax de sama diggante ak yàlla ak yonente bu tàdd bi aana mi ngi këram nekk ak jëkkëram ci jàmm ak salaam litange di am musul sax litange di wax musul sax am pour di secondes mais xam nga ñoom li leen dese mooy comme ñoom ay nitu caaxaan lañu te ay fenkat lañoo ki góor jigéen ñoom yaakaar nañ ne sénégalais yi dañuy dem di daanu ci seen piège yooyu et am na ne tombera pas dans ces pièges yow Tange yaakaar nga ne am nga maqaama yow sa baay amul maqaama boobu sa ndey bi la jur amu ko sa président Macky Sall amul maqaama boobu yow nga defe ne yow mi jàngul jonguwoo xamoo dara yow nga yaakaar ne Ousmane Sonko dina génn moo mag jabaram ñu def vidéo ne la waaw Tange ñu ngi nii demal këram du xam nga ko Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ku ñëw da ubbil yow di da ngaa a xam ndax mi ngi këram wala new fa demal vas-y Ousmane Sonko këram ku ne c'est ouvert pour tous les Sénégalais xam nga nit nag man dafa am lu ma xam ne daf ma jaaxal ci doomu Adama yan tey da dem ba duul defatu leen ko muy dara lu sérieux ci senegal maanaam maintenant. képp ku bëgg a bës rek day ne xaaral ma jël turu Ousmane Sonko bi ma caaxaanee ko ma layam layamee ko jël ay ci wax xam nga dafa jar lu am lu loo gis rek dafa am lu ko lu ko yëkkati mois de septembre bii dafa am luñ ci war a wax lu rëy dafa am xale bu jigéen bu génnoon le 31 décembre 31 décembre mu présenté nee na ay test de grossesse mu tudd Adji Sarr mu joxe ay test de grossesse nee na moom dafa biir adduna bi yëpp di xaar pour Adji Sarr wasin adduna bi yëpp di xaar pour bi yëpp pour mu wasin waxu leen ñu dara lu jëm ci loolu Adji Sarr wasinul xam ngeen ne aji sar biirul xam ngeen ne maintenant vous aurez des problèmes à vous expliquer ngeen dem indi beneen scandale comme toujours ngeen ne nañ ko teg ci bopp Ousmane mu sell bi mais y une erreur qui s'est ndax xëy na yow dag ñoo dégluwuloon keroog temps bi ñuy génn ñu ne gat sa gat sa ñu ne sénégalais yi képp ku defati képp ku def li nga xam ne du yoon Ousmane Sonko c'est un citoyen lambda comme yow ak man c'est quelqu'un qui veut être président du Sénégal boo amee ay question yoo koy laaj nga teg ko ci dëgg nga teg ko ci yar ak teggin dina génn moom mu wax ak sénégalais mais bu fekkee da ngeen bëgg seen jikko doomaraam yi comme ay nit yu bon ngeen ay góor jigéen ay góor yuy xeesal ngeen comme amuleen jom yeen yow xaritu Mati trois Pommes nga waroon na laa avertir balaa ngay dugg ci lii tu es un grand ami à Mati Trois Pommes Tange depuis 2011 yaa ngi Sénégal di filmer ay doomu aadama yor say caméra di topp ay doomu aadama bu fekkee Ousmane Sonko jabaram génn na këram te yow nga ne people nga yor te yow nga ne gis nga ko ak ay rob mais wan ñu film yi nga am yow montre nous tes photos et tes preuves c'est très facile Tange yow won ñu say preuve won ñu preuve yi nga am yow yii wane ne Ousmane Sonko dafa tas C'est pas à Ousmane Sonko de te prouver qu'il est divorcé quand il n'est pas divorcé. yan ay fenkat ngeen yéen dem ngeen tey ba fen amul dara loo xam ne jomb na leen ci dëkk bi tey jaay ngeen seen taat yi ndax koppar nekk ngeen ay góor jigéen ndax koppar sàcc nga ndax koppar duul nga ndax koppar lu ne def nga ko ndax koppar donc yow amul dara loo xam ne yow amul dara loo xam ne di nga ko waxati ba doomu sénégalais yi di jóg sax di ubbi seen xel yi di la déglu toi tu es un man biñ na ko waxee dama leen ne waa ji imbécile la ñaari exemple laa am te yàlla ndeysaan yàlla du bàyyi lu yàgg mbir di yàgg parce que Tange xam nga génn na fi barki démb mu yor làmmiñam waaw am na benn député APR boo xam ne dafa tëddee benn xale bu jigéen waaw may ko oto voilà may ko sept million mais loolu du à la une tâche loolu du exclusivité parce que bis bu ne député Macky Sall salli tëddee ay nit may leen ay xaalis yóbbu leen ci ay kër wala da nga bëgg ma indil la sa vidéo copine bi Mati trois pommes waxoon na ko fi tâche loolu du exclusivité loolu du information information boo koy indi da ngay indi information boo xam ne doomu aadama yi masuñu koo dégg yow sa fen yi nga indi keroog bokkoo dëggal fekk nga déjà sa mbokku journaliste yi génnee nañ ko ça fait déjà neuf mois bi problème Adji Sarr bi yéen a problème Adji Sarr xam nga pour nous y pas de problème de Adji Sarr yéen a am problème mu Adji Sarr parce que yéen a créé Adji Sarr yéen biiru Adji Sarr yéen a créé ne Adji dina wasin te Adji Sarr wasinul ndax biirul léegi jaaxle ngeen ngeen ne nañu attaqué waa ji ñu ne këram yëngatu na kër Ousmane Sonko yéen yaakaar ngeen ne Ousmane Sonko mu sell mii mën a gëmloo mën a tax dix millions de sénégalais topp ko gratuitement di ko jox seen xaalis bëgg koo fal ci seen bopp réew nga defee ne Ousmane Sonko mu sell moomu dina dugg ci yu ñàkk fayda yi ngay waxtaan nga defee ne Ousmane Sonko dina xamanteeg jigéen boo xam ne bu ñu sëkkatee rek wax lu dul dëgg sax mu gàddu ay bagaasam dem ne man mer yow nga defee ne Ousmane Sonko mu sell mi dina xamante ak jigéen aana de ñi ko xam biñ ma ko seedalee dama ne macha allah aana buñ la ko seedalee ñi wax la ay jikkoom wallahi di nga rus liñ ko wax sax ko war na yow yaa ñàkk jom dange yow yaa ñàkk jom xam nga man Sénégal nag lii rek ma ci sonal man dama gis réew ñàkk na jom ba sonn mais musuma gis réew mu mel ni Sénégal yow dangay wut buzz dinañ la may buzz mais buzz biñ lay may day lakk sa gat gi duñu la may buzz bu lay taal buzz bu lay fay lañu lay may jël leen loolu ñaari buzz moo am ci àdduna bi buzz bi lay taal ak bi lay fay yow duulkat bi yow laa xam ci Sénégal yow génnuloo fii barki dem nga ne yow voilà xaar leen ñu ngi waaj a génne ay vidéo yoo xam ne waa Wally Seck mi ngi mi ngi def lii mi ngi def lale dañ koy fabriquer da ngay duul Tange ñun gise nañu Amérique maag yow daje nañu Las Vegas man ak yow daje nañu Las Vegas et on a parlé et tu m'as beaucoup dit mais xam nga lu may def damay daal di gore rek loolu ma denc ko ba ci kanam parce que jotagul Tange wax nga ma lu bari ci ay nit yu bari senegal nag lu bari laa la wax ci ay nit yu bari ci senegal toi tu es un yow doo wax dëgg yow fenkat nga soskat nga rambaaj nga xam nga luy rambaaj rambaaj nga parce que lan moo fi rambaaj lan moo yàq diggante Pape Diouf lan moo yàq diggante Pape juuf ak Wally Seck ba tey duñu laale lan moo ko def monsieur rambaaj lépp ci yow la jóge man xamoon naa ne bi nga associé ak Dame Dieng mu lëndëmal Sénégal xamoon naa ne taal senegal moo leen tax a jog waaye wallahi seen bopp ngeen di taal parce que guddi yi ñu nekk gàtt sa gàtt sa kese loo leen fi def loo leen fi ji suba ba guddi jot dinañ leen ko tontu duñ leen ko baal nag bu leen ko bu leen yaakaarati maintenant c'est gàtt sa gàtt sa léegi ngeen di lépp suba ñu fay boo leen lebee tey suba fay booleen leen lebee tey suba fay du amati benn yoon boo xam ne da ngeen di génn def seen yëfu doomaraam yi seen yëfu nit ñu bon yi seen yëfu góor jigéen yi yaakaar ne dañuy toog yow keroog bi ngay wax ci usmaan Sonko noyyi sax mënuloo koo def <coughs> keroog bi Sonko nooyi sax mënuloo koo def et puis xam nga ne li grave mooy doomu aadama di fen ba yow ci sa bopp nga gëm sa fen yi xam nga man Sénégal lii moo ma jaaxal léegi Sénégal la la mythomanie est devenue un un un boulot bien payé au Sénégal la mythomanie xam nga luy mytho Tange je vais te donner la description wala ma ma attel la wala ma indil la moo mythomane wala gars yi ngeen bindal ko comme jàngul jongul walla ngeen ñu jox ko description ñu waxal la tekki la luy mythomane mythomane yi tange feebar la mooy feebaru sos ak fen maanaam doomu aadama bi day fen di fen di duul di duul di duul ba gëm ay duulam day duul ba pour moom duul c'est normal looloo dal da nga am feebaru mythomanie parce que nit kuy toog jàkkaarloog ay million de sénégalais toog ci télé ngay aana jamanka aana aana jamanka Ousmane wax ñu aana Ousmane fotowul nga yónnee ma ak aana yow xanaa xamuloo ay nit ñooy dem kër Ousmane bis bu nekk di fa fekk aana ay nit la aana di toggal di leen jox tey rek aana ngi doon toggal ay nitam ay ganam yow doo bàyyi duul man temps mën a fen nit naka ngay Tange tu es un xamuloo sa bopp mais il faut ngeen xam ne aussi Sénégal bii ñu toll nii du ñu lebleeti dara gàtt sa gàtt sa boo leen defee ba pare encaissé leen te encaissé comme des hommes te encaissé comme des démocrates ndax ci suba ba léegi Tange ak may yónnee ay message yaakaar ne lii ma préparé nii dinaa ci génn déedéet man duma ci génn de lii ma préparé nii duma ci génn waxoon naa la lii di nga fay tu vas parce que comme da nga sos danga indi ay fen teg ko sur le plateau on va te répondre sur le plateau vous vous êtes malade yéen amul lum leen jaralul yow imbécile bi nga doon xamatuloo fooy teg sa tànk léegi yaa ngi bëgg a wutati buzz sa buzz jeex na Tange tu étais là depuis 2011 il faut passer le relais au plus jeune da ngaa xewi xew yi moo metti yi mënuñu supporter xew yi am na ñoo xam ne xew yi bu leen dalee dañuy am na ñoo xam ne xew yi bu leen dalee dañuy dof te Tange dangaa xew yi Tange tu es un mythomane dangaa xew yi il faut arrêter Ousmane Sonko du seen morom du seen moromu baay et on vous l'a dit il sera protégé avec notre vie Ousmane Sonko dañ koy protéger ak suñu bakkan comprendre leen de xam nga tey ndeysaan ñu bari ñu may laaj ci biir live bi ana yi ndax yegg si na New York ana Macky yegg si na Macky yegg si na ak jàmm ak salaam les ñu ne booy wane sa doole da koy wane da ngay def li li américain di wax a flex of muscles Macky Sall fay na sénégalais yépp ku nekk ku nekk deux cent cinquante dollars américain la fay pour nit ñi dajaloo Farba Ngom ñëw na man ci sama bopp j'ai reçu pas mal d'appels euh, parce que comme tamit Sénégal la ñu nekk xam naa yaakaar nañ ne Sénégal tout le monde est corruptible façon téléphone bu dëmm bu ne jot naa ko diggante démb ak tey façon téléphone dëmm bu ne nag façon téléphone dëmm bu ne jot naa ko diggante démb ak tey parce que pour ñoom comme ñëpp mën nañ leen ko corrompre ci àdduna bi mais dinaa rassurer waat doomu sénégalais yi rek ne leen toog leen te ngeen sant yàlla te ngeen gërëm yàlla te ngeen xam ne seen frère bii maa ngi yéen picc ak peel rek amul benn nit ci àdduna bi bu ma mën a convaincre ba mën ak Macky sàll ñu jàkkaarloo Macky Sall li may wax ak moom maa ngi koy wax ci kaw antenne bi àdduna bi yëpp dégg nañ ko du ma wéet ak kenn di ko fa waxtaanee incha allahu rabbi bu leen dara naqari nag parce que moi je vous man dama leen respecté ma jox leen cër amul woote bu ma jotul nag diggante démb ak tey du ma lim ay tur mais maa ngi leen di waatal ci alquranul karim billahi wallahi tallahi amul woote bu ma jotul diggante démb ak tey Ousmane il faut nga toog ak Macky Ousmane Macky nangam Ousmane Macky nangam damay sourire xam ngeen man ndeysaan dama am humeur mais nee naa leen lépp lu ma bëgg a waxal Macky mi ngi ci kaw plateau bi na taal Facebook rek bu taalee Facebook dina ko dégg incha allah suba bu subaa il vont tout comprendre bu subaa dinañu comprendre lépp xam nga nag nit boo tegee ay plan doo ci wax lu bari boo ci booy def ay plan comme boo bëggee dajeeg président de la république nga koy gatanlu bul wax say plan waaye je vous assure les sénégalais assuré naa sénégalais bépp bu nekk ci àdduna bi suba seen xol dina sedd ni glace suba da ngeen di toog ci seen kaw lal ñii di jooy ñii di kontaan ñii di fecc ñii di alhamdulillah ñii di macha allah suba seen xol dina sedd guy bu soobee yàlla lépp lu leen nakkari ci Macky Sall lépp loo xam ne yéen manu leen koo faj bu Macky Sall ñibbisee bi yoon dina leen respecté Macky Sall va respecter les sénégalais. incha allahu rabbi mais moi je vous garantis que man sama xol bii yéen ko moom je ne suis pas parfait nag doomu aadama laa mais je vous garantis que xol bii yéen a ko moom te duma amati erreur ci sama adduna bu soobee yàlla suba dinañu yeewi askanu Sénégal suba dix heures du matin devant la maison senegal dina dinañu yewwi askanu senegal suba ñu ngi woo sénégalais yi dinañu yewwi askan wi te fayuñ ci kenn dërëm joxewuñu transport mayewuñu billet incha allahu rabbi suba dana danañu yewwi askanu Sénégal bi ba ñu yeweeku suba bu suba ak jàmm danañu yewwi askanu Sénégal ginnaaw loolu nag ma dellu siwaat ci Tange mën a duul tànjan parce que yow sax ñetti ñetti ñetti pàcc laa la bëgg a defal bu ma la defalee benn pàcc ma mitan ma defal la deuxième pàcc ma mitan ma defal la troisième pàcc xam naa ne fi nga toog nii ndeysaan sa taat baa ngi pat pati solal pampes nag taa solal couche ndax boo solul couche da nga day sa tubéy tey solal couche de il faut mettre un couche parce que Ousmane Sonko du sa moromu baay du sa moromu ndey du say du sa morom Ousmane Sonko vous ne boxez pas dans les mêmes cas yéen ngeen réew ay xale yu yaa deku ngeen yaag daam bu ñàkk jong vous set malade vous êtes des malades mentales yéen da ngeen malade ba yaakaar ne nit ñi dañuy malaat ànd ak yen yéen pourquoi ngeen defe ne Ousmane Sonko seen morom la xanaa déggu leen liñ leen wax sénégalais boo leen bëggee laaj Ousmane Sonko question demandez-lui la question ma ne lu leer laa leen wax de Ousmane Sonko boo leen ko bëggee laaj question laaj len ko ay question mais pour yaakaar ne di ngeen ñëw bëgg a yàpp Ousmane Sonko dugg ci vie privée am dépassé ko seen baay Macky Sall moo ko jiite seen yëfu imbécile yi ngeen di def seen baay makki Sall moo ko jiite vous n'êtes pas poli amu leen yar amu leen teggin bu ñu waxee ngeen ne wala génn nañu saagañu li nga génn wax ko Ousmane Sonko moom lañu la delloo te bu subaa boo génnee bu ñu génnaatee wallaay di nga xaru wallaay tu vas te suicider parce que rek bi nga ñëwee nga ne ragaluloo yow dara yow di nga wax on comprend on comprend que ragaluloo dara mais bu soobee yàlla yow waxal ñun tamit on a le droit de réplique boo waxee ba pare ñu nit dinañu ñëw ñu tontu du yow da mën a wax ñu nit mën nañoo tontu. ma ñëw tegal leen bandi salte yi seen affaire u yi nga xam ne yàgg ngeen koo def xool leen oto bi nga xam ne moom lañu ñu ci buntu kër Ousmane Sonko. fii la léegi waa leen. saa fii la ko photo bu ma kenn fii la ko photo saa kenn du ko photo. Vous voyez ce délinquant devant la maison du président Ousmane Sonko. xam ngeen ñun ñaata vidéo la ñu yor ci yéen est-ce que xam ngeen ko Tange xam nga ñaata vidéo la ñu yor ci est-ce que Tange xam nga ñaata vidéo la ñu yor xam nga ñaata audio la ñu yor ci yow ñun xam nañu ne tu es Mati xam nga ñun xam nañu ne Maty moom ñemewul génne di wax Maty Sanwén moom avertir nañ ko moom reculer na elle a été intelligent parce que xam na ne bu reculer wul dinañ ko yàq mais comme yow da nga am fit yaag sa yaag sa deux centimètres bi nga dugal ci ginnaaw Ouzin Keïta on va régler te ton cas imbécile un voleur déglul un voleur waxal ci ooru jàmbur bi moom waxal ci ooru jàmbur ci li nga xamante ni moo di invité yooyu leen waaye nag ci biir émission boobu dafa daal di am benn femme boo xamante ni dafa daal di woote moom nag ba wootee dafa daal di wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel ay or yoo xamante ne nii bu ñu sukkandikoo ci moom Tantandia moom moo ko daal di sàcc ci euh, femme boobu lee waaye nag ki nga xamante ni moom moo di euh, Rone bu Sinapp 221 moom daal dina fexe am numéro ndaw soosulee daal di woo ndaw soosule ngir mu expliquer ko li nga xamante ni noonu la fay demee mbir mi nag mu ngi noonu moom Amina daal ñun xam nga lu ñuy indi ak Sonko dafa am waa ji laaj mu ne ndax yéen dictature ngeen bëgg indi ak Sonko non indiw ñu dictature ak Sonko ñàkk yabaate la ñuy indi ak Sonko xanaa déggoo li ñu wax gat sa gat sa mooy boo deful kenn du la def xam nga luy gat sa gat sa mooy boo defee sa ñaawteef ñu répondre la ak ñaawteef si tu donnes ton coup on te donne un coup en retour si tu demandes des questions polies on loolu laa leen di wax déggoo li ma wax de ma ne gat sa xam ngeen luy gat sa mooy boo defee ñu def boo waxee ñu wax boo deful du ñu def mais politique la le combat politique se bat sur le terrain politique lii ngeen di def nii yëpp dañ leen yónni ne leen lëre leen affaire bi après ñu convoqué Ousmane Sonko laaj ko ay question buñ ko convoqué daal di jàpp Tange yow génnal nga jaxase nga ne jabaru Sonko dem na nangam nangam nga jaxase xolu sénégalais bu subaa ngeen fabriqué benn vidéo waaw kii Ousmane Sonko la woon ak Adji Sarr ñu ngi leen di xaar déggoo ma de ñu ngi leen di xaar gatsa gatsa rek. Gatsa Gatsa on vous attend boo leen génnee ñu génne boo leen bombardé ñu bombarde boo leen waxee ñu wax boo leen laajee ay question ci yar ak teggin macha allah Ousmane Sonko président Sénégal la bëgg doon laaj leen ko lan lay defal Sénégal bu dee dafa sàcc ay koppar comme yow Tange xam nga Tange dangaa sàcc ay ooru ndaw si parce que ndaw si génn na wax adduna bi yëpp dangaa tege ooram comme ni ñu nee dangaa defal Ouzin Keita bagage ci ginnaaw loolu tamit. mi ngi fii ci réseau yi léegi bu dee Ousmane ko dafa sàcc wala Ousmane Sonko def loo xam ne dafa sonal sénégalais yi génnee leen ko ngeen indi ñu indi preuve ñu leeral waaye toog ci sa télé nga ne yow pour ngay def sa première émission nga génn balaa émission bu njëkk bi sax duul yi njëkk yi nga njëkk indi voilà Wally Seck ñu ngi koy waaja a defaral benn vidéo vidéo bi semaine prochaine semaine xam nga bi nga ko waxee léegi ñaari semaine passé na fi temps dara génnul nga ne waaw ñoom moo Gates ñoom moo Gates ñooy préparer Wally Seck benn vidéo pour génne ko man maa ngi ni Amérique et je peux garantir que da ngay duul Tange yaa dàq duul ci àdduna bi problème bi am diggante moo Gates problème yi am ci àdduna bi yëpp li lëmbale àdduna bi yëpp li am même ci diggante Viviane ak doomam ak Mo Gates tange tangeant yëpp yow yaa ko orchestré problème yi nekk ci senegal bi yëpp ci diggante chanteur yeeg ci diggante chanteuse yi ci diggante showbiz bi yow yaay lëmbe lépp yow yaa accaparé lépp ak say duul dangaa duul ba xeesal yow dangaa duul ba rocceeku mais toi tu es un imbécile xam nga man nag li may am ci yéen pour di leen ko wax ci senegal dañoo baaleetul on ne pardonne plus ku bëgg a def yow defal rek mais gat sa gat sa rek gat sa gat rek kuy def am na benn booyu idi bu réew benn géwélu idi xam nga idi géwél la mais géwélam aussi géwélu géwél bu doomu xaram boo xam ne mi ngi ci réseaux sociaux moom laay waaj a jongal fan yi dama koy dajaleel lu bari nag parce que boo leen yaakaaree ne di ngeen ñëw ci réseau yi di manquer nit ñi respect ñun président Ousmane Sonko dañ ko gëm bu leen ñu laaj pour pourquoi ndax mbëggeel yàllaa koy def ci xol comme niñ leen koy waxee rek yàlla bu la bëggee bu la bëggee jox nguur day jël sa mbëggeel def ko ci xolu nit ñi yàlla bu bëggee foqati nguur ci yow day jël sa mbëggeel génnee ko ci xolu nit man mag Macky sàll mënuma ci moom un dollar gis nga nit su may waxtaan ak yow sax nga nuyu ma ñaar ñett mais boo nee tout simplement rek tout simplement boo ma nee Macky Sall rek yàq nga waxtaan bi Macky Sall manuma ci moom cinq centimes c'est ça moom problème loolu nag yàlla moo koy def xëy na yàlla daf koy génnee ci xolu sénégalais yi parce que sénégalais yi pare nañu ak moom loolu mooy dëgg lu ma am laa leen di wax de bu soobee yàlla lu ma am lu ma am lu ma am lu ma am ci yéen incha allahu rabbi lu rëy a rëy a rëy a rëy a rëy a rëy a rëy lay doon te du doon ay caaxaan bu soobee yàlla bu soobee yàlla rek yàlla ak ki ñu sàkk yàlla bu soobee yàlla yéen def leen seeni ay ñaawteef boo leen defee seeni ay ñaawteef ba pare incha allahu rabbi ñun ñu ñëw répliquer euh, ma naan bisaab ma ñëw ci troisième partie Tange ah vitamine C c'est très bon voilà Tange allez aywa njaxeen nañu dolli laat Tange nañ ko dollil waat tuuti ah nañ ko biisalaat léegi dafa am loo xam ne je pense que war nañ koo mën a comprendre ci Sénégal te bu ñuy wax euh, suñu kàddu yi dañuy bëgg mu leer nag pour doomu aadama yi dégg ko bu baax a baax a baax mu leer buñ koy dégg ñu dégg ko ñu am déggin euh, man ngeen rafetal mbir mi xam nga noo leen ko mën a rafetalee mooy ngeen respecté sénégalais yi boo leen bëggee am ay information yoo leen génnee génnee leen ko ak jàmm ak salaam amuñ ci benn problème mais boo leen bëggee ñu yàq réseaux sociaux yi commencé fee génnee ay affaire yoo xam ne doomu aadama yi sax dootuñu mën a ubbeeti seeni ay bët continuer leen ci tànk bii ngeen nekk tànk yi